combat bi kenn woo ko woon. ñëpp a ko woon xam naa paa bi xam naa paa bi nga wax. mais ci place Ousmane Sonko. ba tey dafa jàpp war nañu ko jàppale. man lu li ma njëkk a xalaat mooy. xale ñi nga xam ne ñu ngi ci biir kaso fu mu ne Sénégal ñi nga xam ne dañoo manifesté pour Sonko. ñu ngi nii di naan Sonko mais xale ñoo gën a souffrir. ñu ngi leen def ci kaso yi xam ñu ko. xale war nañu ko baax a baax. ñu bàyyee loxo dañuy sàkk xale yi. kon war nañu nangu loolu. il faut ñun yëpp ñu jóg taxaw woole ne Sénégal am na borom Sénégal héritage la suñu maam yi ñoo ko moom te ñu bàyyi kenn ñu yàqal ñu Sénégal te kenn du taal Sénégal war ñu nangu loolu parce lu Macky pare def kenn waru ko nangu ma est premier seigneur yéen sant parce que sant na trop mais góorgóorlu ngeen ngeen ñëw loolu laa amoon may wax. merci ñu ngi oo Diouranion section Saint-Denis Diouranion. salaamaaleykum. moom nga leen di ñëpp. bu may sukk. section 93. ban pacifisme. yow gaa. bu duggee nag sama intervention maa ngi koy àgg ci trois points. bon premier point yu mooy. sur le projet de Ousmane Sonko. c'est-à-dire que projet bi. des projets boo xam ne dafa concerner la personne la plus âgée du Sénégal jusqu'au bébé qui est né aujourd'hui parce que ce projet est là pour que le Sénégal se résiste saisisse parce que projet boobu bu jàll bu jàllee bu ñu rawee day bokk kenn ku ne rek dama sax ko xam tëdd xelam xam ne bare nañ ci bonheur dans la vie donc moo tax mel wax waa Sénégal yi ne mais nag quand même borom moo ko fay boppam te tey Macky dafa màcc Sénégalais yëpp les 16 millions du Sénégalais ma Macky da leen a mbéy. ba nag kenn ku ne def ñu loxoom bés bu laajee Ousmane Sonko loxo yëpp daal ci kawam loolu waa may ba ful ko. deuxième point bi nag mooy dama dégg lépp ñoom ñu naan nañ justice bi def loxo liggéeyam. non y' a pas justice Sénégal le peuple sénégalais. C'est nous qui vont faire un positif effet dans la vie. On ne doit pas laisser Ousmane Sonko Macky def lu ko neex. Les Sénégalais disent jamais, jamais plus que jamais ñu seetaan Macky Sall def ko mandat de dépôt. Bu ko defee mandat de dépôt à minuit, il faut le tuer. Ils sont prêts à l'empoisonner, je le dis aujourd'hui. Et vous prenez en main, béni, ils vont l'empoisonner, que ça soit billahi wallahi wa taala maa ko gën ci yàlla Sonko yow Macky Sall bés boo Sonko dina la bi laa commencé des manifestations li tax daan ma dem manifestation parce que dañ naan chaque population a le président qu'il mérite man daan naa toog ma ne Sénégal mérité nañ Macky Sall parce que li tax ñu mérité Macky Sall Sénégalais ci boppam noppi gi moo yàgg gis nga France boo gisee ñun ñëpp ñu ñëw fii tey liberté bi moo tax te gis nga ñii nii dessin yi man na seenaa ko yow Sénégal

Sénégal héritage la suñu maam yi ñoo ko moom di ñu bàyyi kenn ñu yor xel Sénégal te kenn du taal Sénégal war ñu nangu loolu parce que lu Macky pare def kenn war ko nangu maa ngi leen remercier yéen yëpp di leen sant parce que sax na trop mais góorgóorlu ngeen ngeen ñëw aussi je remercie tout le monde loolu laa bëgg a wax. merci beaucoup maa ngi woo oh, Birane Niang section Saint-Denis Birane de trois points. Mon premier point mooy sur le projet de Ousmane Sonko. c'est-à-dire que projet bi day projet boo xam ne dafa concerné la personne ngeen quoi donc ngeen di def doxal seen affaire yoo xamante ne bis bu affaire bi ne bu ñu waxee xob jarul sax ñu naan non ay Dakar bi nañ ko saytu non synchro fii mu tàkkee fii tàkk fii tàkk fii ñu xam. kon lañu war a attaqué. li ñuy wax man la Sonko fu mu jëm a Sonko. dañu toog ci àll rek. dem préparer seen plan Macky Sall fi mu ñuy def na jàpp Sonko parce que Macky Sall xam na. système la ñun xam na ne Macky Sall fi mu mën def na def. kanam bi si nii waate si ku mën a doon. seen Sénégal ñoo ko moom. te duñ bàyyi Macky Sall mu ngi koy yàqal loolu laa am lu koy wax. message bi pour yéen vacances des

ñu ko ci jàppale mooy ñi nga xam ne ñooy juge ak magistrat yi ñoom dañu am njaboot gis nga boo gisee muy continuer am fit di def lu ko neex c'est parce que am na ko ci jàppale léegi nag man damay ñaan patriote yëpp fu ñu nag fu ñu mënti nekk ñooñu nga xam ne ñoo koy jàppale nañ dem seen seen njaboot il faut ñu dem ñu noq leen ñoom ñëpp. seen biir kër teg ko lakk lakk. ñu bàyyi kenn bàyyi woote waa Sénégal région ne département bu ne. nañuy jóg tous les jours ñu paralyser dëkk pourquoi parce que amuñu service d'ordre bu doy au Sénégal il y a cent vingt sept mille fonctionnaires ou cent trente mille fonctionnaires ci fonctionnaires yooyu am na ay gendarmes am na ay policiers am na ay militaires donc nous sommes seize millions doyul ñu pour continuer les patriotes. mënul nekk. il faut que magistrat yi ñuy àtt dëgg ko ci déglu ñu fekk la duma la. seen kër la ñu war a attaqué. ndax lépp léegi nag. seen i njaboot ak seen i kër. patriote yi nga ñu nekk France fii di woote patriote dañ koy wane Ousmane Sonko daf ko wane Ousmane Sonko dafa ñàkk liggéeyam sacrifié boppam képp kuy wootee patriote ne da ngay jàppale Ousmane Sonko tu es capable de te donner bu ñu nax kenn. bu ñu nax kenn dañ ko yaakaar moom wane na yoon bi nañ ko ci fekk bu ñu naxante léegi nag fii gars yi dañ fi am njaboot ñun dañu wax organiser benn brigade de veille fekk leen ci seen kër yi di leen dund xatal ba Macky Sall xam ne moom moomu Sénégal bàyyi moomu ko ndeyam moomu ko loolu laa leen di ñaan bu fekkee yéen ñëpp ay fan ak yéen ku ci nekk ci ñun eh, gox bi nga dëkk c'est-à-dire du buy ville naka jël sa tàkk dugg ci kër yi laajte kan nga fi patriote pour mun ko identifier loolu ci mën a génne Macky Sall moom la réew mi te Macky Sall du tëj Sonko du ko tëj amul amul ma xaamaam ñu benn ñoom ñaar. di leen ñaanal encore une fois si nous sommes patriotes dañ ko war a wane du toog ay salon di def ay live wala génn di jënd ay attaques yu kenn xamul non. nañu jël ñu jël benn organisation fii def ko brigade de veille dem sa xam ne fi mu dëkk. population yi ñu def état yi sànni ko ndox ko mu dul. Ah dañ ko def les responsables d'affaires il faut les attaquer c'est